fu ñu toll mooy gendarmerie. Mhm. li ñuy def noonu ak tact et tout on est même allé jusqu'à dire que dañuy joxe ay masques comme ça se fait. Mhm. ailleurs. Mhm. et c'est excellent. c'est excellent. si je pense que fi ñu toll àdduna bi fi mu toll ak fi Sénégal toll. nguuru Sénégal. dafa war dem plus dans boole. fexe ba asma ak roxee nekk benn fexe ba professeur ak yeneen professeur yi nekk benn. loolu mooy mottalente mot voilà la complémentarité ñu nekk ci. su nguur bi loolu la war liggéey et je pense que ci ci approche nii nii nii dooruñu kenn. Mm. blessé wuñu kenn. Mm. dugal ngeen xaalis ci gafaga mm-hmm. mais bu yàggee. nit ñi topp yoon bi. tout à fait donc léegi nag ki nga xamante ne dafa dëgër bopp ni Baye Assane moom taxaw ne raak ne day raak moom. Mm. kooku leneen la comme ça dóor buy am mu nekk exception. Effectivement. Voilà. Mais c'est très bien, il faut, il faut les féliciter. Parfait. Nouvelle offre Orange. La RTP somme euh, Orange d'arrêter ses nouvelles offres. Voilà. RTP ngi réagir. waaw ah moo ñu fi nekkal di. monsieur Ly moo war a tranché. le DG monsieur Ly loolu la loolu la wax xam le ne déjà ci période bi ñu toll c'est tellement difficile. Ah. nga bëgg encore plus de profit bëgg encore dafay diis dafay métti. et la clientèle est assez fatiguée comme ça. démb am na ku ma ne dafa dugal carte doon manipule crédit ba dem. waaw loolu bari na bari lu muy dal ay nit. Mm. waa léegi crédit boobu demee fan lay dem. ay milliards am léegi bu fekkee euh, sur 6 millions d'abonnés ou 7 millions ou 8 millions voire plus bu fekkee def ngeen ko ci journée bi la moitié des des abonnés. Mm. Ah, dafa am lu ñëwaat cest dire que finalement yéen dara génnul ci yéen et vous prenez tout de nous donc ARTP li mu def noonu baax na ba pare ARTP sax dañoo baax dañoo yaru. dañoo dañoo am teggin mais il peuvent aller plus loin et bon ARTP c'est l'état du Sénégal l'état peut aller plus loin professeur professeur ñun mënuñu fexe jëlaat suñu ay action ci yi nga xamante ni 42 pour cent état bi li si des amuñu possibilité récupérer ko. mun 27 pour cent. li ci am instant mhm. wala officiel. non officiellement on a 27 pour cent. on était plus on était même voilà et maintenant. Euh, d'état ba mais dañuy jaay état moo jaay ay wallam. léegi léegi stratégiquement nan la nguur mën a ban soxla la nguur mën a am tey bay gis loo xamante ni c'est à plus de 1000 la ne nga ne noo damay jaay ban soxla nga am ban urgence nga am loolu loolu xam na mu tudd. Hmm. haute traison la. waaw non je suis d'accord. haute trahison la. Hmm. mënuloo jël société bu ta bu xool xool leen alal alal après on nous dira oui les actionnaires ay sénégalais ngi ci mais yan sénégalais. c'est une petite proportion. Mmh. alors que tey tous les sénégalais les quatorze ou quinze ou seize millions de sénégalais mën nañ nekk ay actionnaire et mhm. moo koy dogal rek. nguur a koy décidé. waaw waaw te di ci ngoy taxaw ci dëgër. mooy jëlaat ay action am. tout à fait léegi bu ko waree jëndaat fi mu nekk nii dina ko coûter cher mais jar na ko. jar na ko mu récupérer non mais non mun na jël la. état nag état la je récupère je récupère je nationalise. oui tubaab bi dañ koy def. comme Sénélec au temps de la ko na ko waaw. mu am solo noo ko gisee Aba. ah oui vraiment ARTP man dama gis ne dafa manqué poigne un peu ci côté mm. boobu noonu mm. quoi. dëgërul daal dëgërul trop quoi. Mm. parce que d'ailleurs dir naa barki dem ci journée aussi que ne ñoom dañoo dañoo euh, orange dafa dafa daf ne non du wàcc ci prix yi quoi. Ah mais tey aussi si journaux yi ci revue de presse yi tey wax nañ que ne orange dafa nekk en difficulté ah dafa nekk ci ay jafe-jafe yu xaw a métti. chiffre d'affaires am dafa xaw loolu loolu communication la. mais aussi li nga wax noonu aussi si carte yooyu noonu souvent da koy dégg ah mais mais y a d'autres opérateurs doo ko dégg foofu ci ñoom rek nga koy dégg. ci ñoom rek nga koy luubal yu mel noonu. waaw souvent ñun dañuy interpellation ñun ñooy arrêté test yeeg yooyu. souvent ah. dañuy yaa vu. c'est extraordinaire mais ñoom kese ngay dégg ñu sama dugal sama carte dama dugal connexion pour pour une semaine deux jours bu jeex. te te ñoom kese ci dans la concurrence ci environnement boobu ngay dégg réseau beneen bi dafa am problème no foofu ñooñu seen connexion mooy loolu kii. kan moo yore plateforme bi. kuy jox ñëpp kuy séddale. orange moo koy yore lépp. te ARTP koy dooleel kon. ah ARTP en fait dafa war a gën am plus de poigne comme il dit cest à a taxaw di imposer wu. mais ARTP ARTP dafa am fu mu tënku. ci lan la ki ne ci kawam ki ko fa teg mooy état wu Sénégal mooy nguur bi mooy le gouvernement du Sénégal. Hmm. kooku moo war am personnalité wu taxaw ne bon léegi lii la ñuy def wante kooku nag xas ma yàlla. Hmm. xam nga ne moom copie coller lay fonctionner actuellement. c'est ça la mi ngi góorgóorlu nag. mi ngi def fi boppam non ne nii copie coller la ñuy fonctionner. Hmm. lu ci bëri même dans notre communication am na ku ma wax lu am solo. Ah. ci ci wàllu coronavirus bi démb sama benn xarit mu ne ma. Mhm. mais ñii lu tax mënuñu def lu simple. les sociétés de téléphonie. message yi ñuy jàllale même l'information là bii mm. génn nii di di communiqué bi di di euh, point Covid déclaration ñëw taxaw lire parce que en fait lan la dangay taxaw ci présent présentatoire bi taxaw lire dem sa yoon. loolu la donc waa ji ne ma mais pourquoi ñu ko envoyé par SMS à tout le monde. c'est-à-dire. ku ci nekk sa téléphone comme avec les sociétés téléphoniques vous l'avez sur votre téléphone et les gens fonctionnent ñu wàññi si cause ba pare nit ñi respecter les mesures mhm. ku am diabète ku am asthme toogal mhm. sa papa sa maam mag yi nañ leen ber ñu toog ñu organiser kër gi qu'on apprenne l'organisation pratique en interne mhm. situation bu extraordinaire la et dans la communication on peut fonctionner comme ça aujourd'hui Hasma on est à quoi euh, cent deux cent deux cent cinquante ou plus boo ci yokkee ñaari deux cent cinquante deux ou je de mort mu ne ma sawaay nañ sant yàlla mu ne nañ sant yàlla de hmm. mu mënoon nag imaginer leen fi tubaab yi di toogee naan deux mille morts par jour hmm. deux mille morts par jour yàlla suturaal ñun ñu toll fii tey ba pare am possibilité wu solution dañ koy hmm. war a wëri te ñi jiite réew mi ñoo war a am euh, génie boobu kon nag ñun dañ leen di ñaax rek euh, sottanteeg ñoom suñu ay xalaat euh, ba tax ne xëy na lu leen di rëcc ñu mën ko dabu ayca affectation du magistrat Ngor Diop de Podor à ties moom la moom la waa Sytjust di di ak ñi nga xamante ni ñooy ñoom ñoom Souleymane Téliko di métitlu mm. Euh, magistrats yi nekk biir Sénégal métti lu pourquoi parce que kooku dañu wax ne dafa am kilifa dignitaire religieux bu nekk fële ca Podor. Mm-hmm. boo xamante ni daal ñi fa nekk xam histoire bi jàpp nañ ni euh, bëri na lu muy am jafe-jafe ak euh, askan ba ak maanaam daal ak force de sécurité yi par rapport ak ci façon bi muy fonctionner foofu moom dignitaire boobu ci li ñu wax. Mm-hmm. ci biir loolu à maintes reprises dem nañ sax ba naan kooku kenn mënulu ko dara Sénégal nag daf fi bëri loolu. kii kat kenn mënul ko dara wante dignitaire dignitaire religieux ci ni ñu ko rapporté ban façon dignitaire religieux la aussi c'est à se poser la question ak lan moo tax mu possibilité wu résister wante au-delà bu fekkee ni que lu ni mel mel am na justice jël benn décision ka jël just décision judiciaire ba ñu woo ko ci nit ñu ko rapporté ne ko bàyyil moom mu def liggéeyam par le principe du mm-hmm. droit mm-hmm. ne ah kat mbir mi nii la tëdde ñu xëy bis ñu ne que sanctionné nañ ko wàcce nañ ko ba pare affecté nañ ko Thiès te affectation bi war a dépendre ñoom ci seen organisation judiciaire dafa ne dafa dépendre ci ki ñuy affecté dafay fekk mu ànd ci. Mm-hmm. ñu jël ko yóbbu ko jëlee ko comme juge. Mm-hmm. fële mm-hmm. yóbbu ko Thiès def ko conseiller maanaam nekkatul sax amul sax possibilité wu léegi juger quoi que loolu loolu c'est c'est c'est c'est c'est démentiel dafa rafetul donc ci contexte bi ñu toll fii Sénégal léegi nag bu fekkee ministre de la justice moom mooy fonctionner non ministre de la justice moom dafa am fu mu tënku kan moo kan moo nekk ci bopp magistrature bi. Mm-hmm. président Macky Sall. Mm. par conséquent l'exécutif est au-dessus du judiciaire. donc forcément ni indépendance justice du Moussa am Milan ñoom nag magistrat yi dañu koy wootee dañu koy xeex mais ni ñu ni mu leen méttee nii ci seen collègue bi. Mm. noonu la leen waroon méttee itam. ci ñi nga xamante ni dañuy dund injustice te bokkuñu ci seen corporation. parfait donc loolu dafa war a nekk loo xamante ni. Mhm. principe boo xamante ni ni ngeen koy mu néew leen di méttee ngeen koy xeexal seen bopp. Mhm. xeexal leen bu ngeen bëggee indépendance bu sincère. Mhm. ngeen xeexal ko ñi ñuy jàpp aussi injustement injustement ñi ñuy tëj aussi de façon injuste ñi nga xamante ni leen di def naka sul parce que ay intérêt politique ak leneen def ko laal. ça fait mal on a qu'à rectifier voilà quoi. parfait léegi Aba. moom. Abba daf fi jaaroon. moom Abba moom waaw doon ñu ziar. macha allah ñu kii ko jaar nga tënk